ah <laughs> sama waa ji. waaw ah. billaay. maa la tey indil naa la gan. donc maa si jàmm. ani waa yaa ngi koy fàttaliku. maa ngi koy ma lay doxaan. waa Ndiaye eh, di jàll say wax day rëy ah, nag yow. waaye ne nag xale yi <laughs> toj ba Banjul. gis déggal <laughs> saa waay nag dafa toj biir kaam. <laughs> kii noonu la mel waa Gunjur. waaw waa Kaarang. nga ni waa Serekunda. waa biir Kaama. waa Baara. nga ni ay waay ma joxe foofu. ñëpp xam waaye yaa ngi sa xorom. xam xam nga kat. foofu lañ ko ah. mënee. Ah. defar ba mu baax rek. waaw na <laughs> xam ngi jàmbati ko toj rek. ah toj kay rajo. <laughs> waa Ndiaye sax. waaw yow loolu de. waaw. yow soirée bu ñu mujjee def biir Kaama yow moom. Ah, boobu kay xanaa bàyyi dal la ba. nga ni ma. dal la ba ak baax na. ay fu la yàlla jàppee. ah xanaa li indi dal la ba. yow moom juróomi téeméeri yat moom moom moom yàlla moom dina la am nga juróom benn. gan am nga juróom benn. ah waaye nag yaa li nga danse ëpp li ma danse de. ah man kat baax na ma laa fa bàyyi. yow nag taaya baa fa ne. Ndiaye bàyyil jàmbur yow mi tamit bu la yàlla jàppee du baax ci yow yéen a ngi seen mbóot yéen a ngi ko fii sonn de. Ah, waaye njaboot gi nag eh, ay waay fu njaboot gi eh, jàmbur. Ah! kenn du wax loolu nijaay. ah déet yéen ñii ay kàccoor ngeen woon nag di tax yéen ñaar ku nekk ngi sulli say mbóotu. déet sànni dàll kat. Ah, lu war a lu war a daw ba rëcc ci lan la bokk. ci ngóor a moo taxit waaye diggante boobu. waaw toj nañ loolu sànni daal lu beeg daw ba rëcc bi lu ngeen doon def. <laughs> waaw loolu nag yooyu nag kii la ah, rek. waaw ñamal leen ay ah, temps booy la rek ah. ay temps booy rek. leen ma ci nag. non ay temps booy la rek. ana xaftaan ba xaftaan ba. de xaftaan ba waxuma la dara sax waaye ba jékki-jékki rek ramas jékki-jékki rek ni far yegg si. xam nga ñoom dañ ana sa ay dikaat moom la ñuy wax carte d'identité. ah moo tax nga bàyyi fa xaftaan. <laughs> moo tax ma bokk fa. da nga koo dem jël. kon yii wóor. <laughs> waa si xam nga nii. xam nga problème doo bëgg ñu sinap. <laughs> xool fi sinap. sinap. gu caagolo xool fi. surtout Foddo yaa ngi xool fi. ah ah. lii kay bro gis nañu ko. gu caagolo. maa la ko gu caagolo. gu caagolo. xool Foddo sinap. sinap. yow kii yaa ko. lii ah. kay mu nga fa. waaw mu gë. xool ko day na day na yéegal ci biir xool ko arrosé fleur rek lañ la fii doyee yow mii man nag kër gi nag jaay waa nijaay ya, war kër ko fi indi de fon na gan gi di yaa ko fi indi ah. man lii laa ko fi indee woon ah waay kii nii kii nii fan la ñemati woon sax yàqal nañu déet xaftaan ba ah xaftaan ba la laaj ten koo ajaratu bi yónnee nga foofu ndox ma may sama gi mu naan waaye ma xaftaan boo sa papa ndox. boobu <coughs> loo ko xaftaan ba. faamaa ngi xaftaan bi nag moom. Mm. man daal ba ma nee saraax ci néegu ndaw si rek. waaw lam ma wan man ba ma bàyyi fa xaftaan bi fu nekk ni man boobu ba léegi dama. gis nag yow maa ngi commencé na lan si woon ba raw li ma lay wan. moo tax ma dinaa noppi sa waay damay dugal. waaw yow tuddoo faamali Amina nga ma wootee Amina ci ñoom. tuutaane nga torop yow. soo xalee ngay ciy fottu. ku ko woo faama laa woo muy seetaan di indi ndox suy faama moo fi ne. Ndiaye dañoo am gan dégg nga bindil. non ah bi jarul laa koy yooyu noonu da dandu xam nga ma laa wax nii yow xam nga leen doo yi kenn du leen faale. jabar yi ñun ñoo leen fi teg. waaw xam nga ma laa wax nii. kon ñun ñoo leen fi teg dëgg moo leen fee teg. Hmm. su dul dëgg rek booy mooy loolu quoi. xam nga xanaa loolu. lan lan loolu lan. dëgg rek mooy dox. waaw waaw kon suy wax ak ndooy doomam yi tamit xam nga yow waroo cee wax dara. Ah. yow kay yaa war a ci kaw ndooy ah. xamal ne du dëgg bi yam ba ma laa nii ah. waaw. ah xanaa bu ëllëgee ma déconné nekkuloo borom kër. an biir. Hmm. biir. kon moom moom suñ narul wax sax yow yaa war a wax yow xanaa amuloo loolu. waaw naanal naanal naanal. naanal te Gambien Gambien nag. man baax na ah, waaw dama ñëwoon nga yegg kër ga ah, ko ci biir. ndax xam nga dañoo soxla sunu bopp. bàyyi noonu rek ah. jaay nag si <laughs> eh, si ma bàyyi soxla sunu bopp. nekkal si jaama. Ah, rek foofu la may ma la. aywaay te nag bàyyi fii mu waaye foo gisee nit ki nijaay. mbalaay banque bee xat ju mu xat. kon da ngaa fayee ku woon nii. banque gi xat gi mu xat. ban Ndiaye tey moom fi nga génn dafa nooy. ma la sax waa. man sama Ndiaye waa deful nii. Hmm? def nii yow tamit. man côté jour bul ko di kii parce que kay keroog bi ma fóonee man man waxuma la dara waaye tu ñuy wow na wow boo xamante ni nii. Hmm. ba ma kiyee man damaa jàpp ne damaa jàmpu so. Eh. sonal na ma ah <laughs> sama Ndiaye ah. nag daa jógee. waa léegi wuyu ma. ah sax xam nga ne tey nag. baal mag ndijoor gii. ndijaay rek la ma ne mag gii ba fii <laughs> moy sama kii boo ko laalee yow tamit nak ah loolu laay tiis bàyyi baik man di tamit bàyyi li def rek li mbagum gi sama point faible la dégg nga ne sama wetum di gi am na ci yëg loo loo xamante nii boo rek man dama naan waa léegi bana léegi bana léegi rek leel toog waaw kay waay waa di jaay wuyu ñu sérieusement nga Hmm. fa ngay fanaani nag de. fàtte woon naa ko sax munoo bàyyi rek ma ñëw si nag dinaa ko mën a gàncax mu def sàcc ay sàcc ay baaxul faaw nga dem néegi fu ngay tëddi loolu nga war a def di sàcc ay ay loolu xalaatuma ko léegi xam nga nu ñuy def tey moom moo ay te timis gi waaj a jot ñu ngi nee di préparé demal nga fanaani néegam ba suba boo ñëwee suba ñu def lépp carte gi leer. Hmm. waaw. non man sax damaa kii xaar ma dem rek si meeku waxaat wa waxaaleet moom tuuti. jay xolal lo def baax na bu la neexee sax lu ko lijjanti yow na nga fa fanane rek man tay hmm. waaw yow lu mi ngi ci biir mi ngi ci biir mi ngi ci biir mom du dem fen. mom dafa mer wala merul lolou bu ko lijjanti na mer bay toj yow bu meree gu merul lu sayo yow dal nang fa fanane do laa sa ndax mo aye kanam gi dafa oyof kanam gi mel kon léegi dang ko raga waaw mais xam gisa na xolal yi moo may boole yow yow bu lijjanti yow dal dama nga tëdd baax na baax na baax baax baax ngi dem waaw demal ngi dem deng <laughs> kii di mu ñu niñ ma soofe waaw lii de du muur mbuuraake la xaaral xeeñ ko ba mu baax soobe yàlla du si lekk de yàqal na ma li ma doon connecté sax man ma egg ba sama connexion Iyalah. WhatsApp beda lu nengit kids. Umban. Wow. Matay la Wow. Ii buda man nanu may atay. Nanu ada. Baax na. Li do nanu ada? Nah. Wow, buda itu tamit Wow, Wa umban ni yo tamit mau xamo ni li ya. hmm? hmm. hmm. li ya, ya. Wow, neex. Hmm. Oh. Wuy ma. Gisa nit da ngay Beli Du Kamu def. sama xarit Wow. Waaw. Soy na. Hmm. Da ngay xend Wow. yeb. Hmm. Yaa ngi Wow. Waaw. déet dama lay woon. waaw ah defal naa nax nax nax ah waaw. xanaa xamoo ne gentleman nga. dina. iii loolu xoola réglé yow gentleman nga da nga war a def fi gentleman fi mm-hmm. nekk di dof dof lu sa bopp sànq sama nijaay fi toog mu ñëw di def say manière bon xanaa xamoon man damaa bëgg sax mën way ñu yóbbu ma grand théâtre xam nga xoola xanaa gisoo way bi eh jawaada mi sa ko di ma ngi jéema ya baax baax na ah. baax na yaa ngi yee xale yi xoola defal ndànk mm. gis nga loolu yëpp nag day fekk nga nekk nit gis nga yow mm. xanaa xamoon man style ngay sosa daf maa neex mais bu ma sañoon ma changer look voilà oh, <laughs> mu càccee gi <laughs> mu càccee léegi <laughs> ah. man xanaa ma ni mm-hmm. lii tax nga neex ma waaye gis man sama beneen umbaan bi man wax dëgg yàlla mënu ma def ak moom quoi dafa soob ñuul ñaaw. loolu moom am na hmm? moom. dafa soob. Ah. ah da ngay wax mu naan la eh bu da nga ëppal bul dem dafa naroon a mbase oh, tuuti ma reetaan ko. dafa soxor dafa siis. waaye bàyyi ko karam bàyyi ko karam bu ko faale. Hmm. waaye yow tamit nag hmm. changer le comportement damaa bëgg nga nite ah, nag yow tamit xam nga nga. xam nga sa bopp waaw nag yow tamit. des fois nite nga sax mais des fois nag da nga ciy boole ci bokkul yow sama nijaay war na fee toog am gan nga ñëw di def say sinab ak yu kenn xam. waaw du ma simol fa xanaa gis waaye yow mooy. kenn waxu la du ma simol. kenn waxu la simol fa la ñuy wax. ah sinab yow bëgg naa laa def nit mais da ngaa yàqamte. waaw wax nga dëgg wax nga luy si simol fa. simol fa mooy lan ci kër àddina. voilà sinab. nii la kay waaye baax na. voilà moytul balaa sama nijaay joo de sinab. xoola damaa bëgg nga nekk nit nag. Mm. changer comportement. Mm. xam nga yow yàlla dafa def man daf maa mm. neex. te bëgguma dara lu la naqari si kër gi da ngay changer comportement nag boo bëggee ñu nekk ay xale. dégg nga da nga wàññi nag bu nga ñëwee ngay def nii. damaa bëgg sax kooku dafa baadoole de ñëw taxaw fii naan ay yow xanaa woowu ma sa nijaay. sa ah. nijaay laa woo affaire ma ne ko eh defal nànk léegi nga dugg di nga dugg léegi nga def di tëj ah, làmmiñ nii da ngay. loolu yëpp garaaw. Ah. yow ndànk xoola toogal man xoola xaaral ma am lu ma la may nga dem jënd ci ay sañse yu rafet xoola hmm. sa lii malay jox ni ah man yow yalla ku ko yëg ci kër gi nak ya ko wax su boobaa dina la mere li bari na de umpay garaawul li du ah. dara man daal lima ma bëgg moom boo si do ah. lu raw li dina la ko jox mais nak eh. ah bu man eh. yow yalla de kenn du ko yek kenn du ko yek bu ma sama nijaay laaje dum ko wax dara loolu amul ben problème léegi dama ah. egg la sa dija liggéey amul problème wax nga dem ma ñew dem dégg wax na la kenn du na tut ay man ki kañ la koy dégg ma ñew ma ñew ba ñëw waa baax na waaw nga bëgg luy baax sax ki li may wàcc ci moom alhamdulilah alhamdulilah xaalis ah yeex na xam ni nga koy liggéeyantee jee astu jee dégg ko mu naan boo xamante ni munoo koo woo benn yoon mu ñëw munoo koo woo ñaari yoon mu ñëw faaw nga dem ba ñett ba ñeent sama yére boobu noonu ma wékk foofu indaale ko mi ngi foofu rek fi nga doon defaree sa kanam googu kanam gu bon googu yor kanam gu bon àlluk neen naan danga ya koy def loolu ko du ñëw de waa jee yow kay ñëwoo boo ñëwoon aksi nga togal nii wool ma sa sa sa sa sa sa sa sa wujju woowu. Aïda Aïda. naam. ndeysaan naam naam. ngi nii. ruus ci suuf. ah ci kaw. bu la blanc rouge son ak xaw ma nan ci kaw. rek nga bëgg. <laughs> nii la. <laughs> waaw léegi ma loo ñuy doyee nag. Hmm? léegi nag mi ngi nii dem naa banque. Mhm. man ak Gambien ñoo ànd. dégg nga. Mhm. waaye liñ ma waroon a fay lépp joxuñu ma ko dañ maa jox rek carte bi cent quinze mille lañ ma jox ni ma appareil fii ak quinze jours ñu joxaat la yeneen cent quinze mille parce waaw ñu ba ñu war a jot xaalis yëpp dañoo bari xam naa nag élection yi ñu jógee tax moo tax xaalis amul. léegi dama koy seddale ku nekk ñamus tuut lee bu dikkaatee ma joxewaat ku nekk ñamaat. di yaay déglu ma jarul séddale bi toujours kay soxna Asou moo daan jiitu ma topp si ginnaaw bàyyil mu demee noonu rek que ñuy commencé naan da ngay séddale dépense bi tamit. tey nag damaa bëgg yéen ñaar ñëpp ngeen di àndandoo rek di wax di dox kenn bañ a jiitu. Pape euh, Ayda loolu d'accord ay problème seen amul benn problème bu la joxoon lépp nga téye sax amul problème. Ah, bu amoon problème it noonu rek laa koy doxee ah noonu rek laa koy doxee. damay bañ nga noonu képp laa koy doxee. waaw man moos xam ngeen ni moos nekk ci àll bi ci 6 heures du matin ba léegi ma jug nekk sa banque bee di rang ku ñëw ñu ni ma mën a goo dugg xaaral kee ñëw. poos yi dañoo bari nag. waaw nijaay sa wër bi yàgg na la. ah poos yi kat dañoo bari. waaw ah, man moom bi moom poos laa koy solee woon. yaa hmm. nii laa ko solee de nii laa ko solee. fii laa ko dugaloon tey. Hmm. waaw fii la war a ne.